man dama against AIDCAN mu nekk 450 dalasi man mosuma si àndata du ma si mos a ànda yow xaalis boobu nu mu fa ñëwee loolu nga war a njëkk a laajte because social security institution doo xam leen social security a xaalis loolu waxi waxtaani banda la loolu dafa war a automatique baro lu ma ko ñaan mooy na wàcca three years am su demee five years dafa am problème leadership bu fi bàyyi dafa bon naa amul direction bu correct réew mi ñëpp seen seen sa am na di sa si mënut a jagal réew li nga war a def bàyyi keneen ñu continuer keneen ñu continuer реализовать. waaye waruñoo jox ko problème waaye sa amee sa amee soo ko amee. mais bii daal kenn moomul kenn moomul kenn moomul kenn moomul kenn moomul kenn moomul kenn Thank you. fit of it. Boy, let's get him. away. naa la ko jël naa la ko. waaw dinañ wax li nga xamante ne mooy seen

umbrone ngeen di gàtte umbrone di ko yóbbu mbay mi taw kese kuréel ak lim leen léegi moo naan ni daanaka moo dugg si kenn. Market and then around the anti-crime. So today um, we can say that some youth picked up and they are brought and then, you know, before this court that they have been charged with several counts, an eight-count charge, um, dealing with um, arson, riot, and also um, in, um, some counts dealing with uh, breaching the peace. All what we are saying is that we want at least for decorum and also sanity. Um, we gotta look at look into this matter well so that we can address it as a country because people are affected about this. Uh, me as a council, I am trying to make sure that they are represented and then I will try to make sure that I will communicate with them and see the necessary legal services that are needed and we try to provide that. That's why we are here today and we know that definitely um, they are concerned that some of these charges, you know, they've been brought with a motive but again, what we want is that we want the process to continue and it will be addressed the whole situation. Yes. Thank you so much. Yeah. Thank you. Sorry, ki nga xamante ne moom moo ñi nga xam ne lañ tuuma laaj ko li nga xam ne moom tuuma si ah, li nga xam ne lañ leen tuuma ak fu mu lan mooy taxawaay bi. waaw jërëjëf tey doo gisee ñu ñëw fii si code bi mooy ne amin amoon na several weeks si gannaaw mooy ay semaine si gannaaw ah, amoon na li fi xewoon. soo dañ ñëw diir boo xam ne dafa am yenn amin youths ñoo xam ne ay ndaw lañ dañ leen arrest ñu ne dañ nekk involve si lii so tey liñ gis mooy indi nañ leen court so bi ñëwee ci koot bi a ah, well ñun try nañ as lawyers pour taxaw ak wax ak bi pour wone ne rek ñu bàyyi suñu xel amin ne amin am na yenn affaire yoo xam ne gis nañ ko and is a I mean first of all am nañ raise nañ the issue of jurisdiction am na yenn charges yoo xam ne dégg dégg dégg du dimbale. affaire yi loi la so ñun lu ñaan rek mooy um, pour code bi jox ñi ay diir ñu gaaw ñëwaat ci code bi. ndax code bi tamit na gaay bàyyi seen xel xam ne ñu bari lañ affect si lii soo loolu bëgg nañ koo wax ci mbir mi lii moo tax ñu ñëw tey ñun itam dañoo provide legal saabisis as council soo dinañ dem gis waxtaan ak gaay ñun yëpp ñu mun a am lu ñoo ooyee sanity mooy xel yu dal pour mbir mi ñu mun koo safara waaye nañ bàyyi suñ xel bu baax a baax ci affaire bi. waaw juróom juróom-ñetti tuuma ah, ñu teg ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy ndaw ñii nii nga xam ne ah, bokk na si li nga xamante ne loolu lañ wax ne loolu lañ leen tuuma mooy li nga xamante ne moom mooy ñaxtu buñ doon def ah, ndeka nga ko gisee comme nit ki nga xam ne yow yaa leen taxaw si li nga xam ne moom mooy wàllum luwa ah ni ma ko gisee mooy rek amiin ñaxtu nag daf de am waaye li am yëpp amiin foog naa ne dañ ko war a seega seetaat ko ndax yëfi loi mooy ah, dañ day am what they call presumption of innocent ba you are proven guilty am na ñeneen ñoo xam ne xaw ma nag gisuma yëpp kayit yëpp ñëwut xam nañ ne ñoom ñu ne bokkuñ si lii so loolu dañ ko war a bàyyi xel ah tamit li ma advice mooy. ñun as legal counsel ak former magistrate li nga xam ne amuloo ko ci firnde li ñoo ay evidence bul jël nit ki rek nga ñëw rek ne because gis nga ko si nataal wala bés boobu noonu gis nga ko ne moom da ko tuuma lii nag lu ma ragal lu la dëgg dëgg dëgg foofu nag ragal lu nañ ko torop am na ñoo am ne si ñoom dañ ne rek nataal lañ leen won ne bés boobu dañ nekkoon ci nataal nekk ci nataal nag ndax tax na nga def nga dara wala defuloo dara lii mooy affaire bi waaye ñun lu ñoo ñaan mooy ne rek ñu alaaw loo bi mu dem wax naa gaay ma ne leen koor bi ruul na pour ñu remand leen da dem go and then we will come back in a week's time incha allah. Ah, Música electoral rigging rocks Zimbabwe as the country. Yesterday, after listening to Prime Minister May's assessment of the state of the negotiations.